maanaam daal la nga xam ne teewluwoo ko moom kenn du la ci bindal dara dara kon nag di julli di xalaat ci mbiri àdduna lu ñu sib la waxal na ko ci gannaaw la ko yàq nag mooy xalaat yee baree baree bare ba nga xam ne xamatoo dara dara dara ci julli ga loolu moom boo ko defee rek julli gi yàqu na nga tàmbaliwaat ko waaye li fay yaa ngi xam nag ci julli ga dara moom kon xëy na tuyaa ba ngay ñàkk rek ci bañ a teewlu julli gi waaye tutee julli ga moom baax na ci yoon mooy kenn du la julliloowaat waxal waxal li ma ñeel ko nga xam ne dafa xajiñ na maashiyan aji dox yuriidu tëj dafa namm benn yedd yi diggante yaari loxoom ne ko maa xale yi ko déet war la min sujjóotin benn sujjóot nee na boo dee julli am ku nara a romb kanam mbaa sax leneen ni ki am xar wala bëy wala leen lu nar a jaar kanam nga jiñ ko bañ mu jaar fi sa kanam loolu dañ ko digal sax boo dee julli bul nangoo ko jaar fi sa kanam kon nag bu kenn dee naree jaar fi sa kanam nga bés ko loolu dara nekku ca da ngaa jëfi da ngaa jëfi ndigal rek julli ga baax na dara sikku ca sujjóot waru ca dara waru ca wa misluhu am ke moom la man ka nga xam ne kaana nekk na saajidan di aju sujjóot xaalaa shaqin ci wet li jëp xat ñeel ab jë la hoo ñeel ko fi maa ca nga xam ne jalaa feeñ na ba tey nee na bu fekkee da sujjóot ci wetu jëbi te sujjóotoo ci digg jëbi xam nga digg jëbi xam nga ko te lañ baaxoo sujoote yow nag nga sujoote ca wetu jëba te sujoote woo ca digg jëba ba tey loolu du ko tee baax ndax sujoot ci wetu jëba dana wecc sujoot ci digg jëba aw tayyatin wala benn lemu-lemu fàqat dong wa tayyatay ni ak yaari lemu-lemu minal ximaamat ci kaala ga bi kasin xëyn ci kasara xëyn nga kasara mooy masket ci suuf imaamati daam xëyn bi xi nga koy maas daa wax ne bu sa lemu woon benn lemu wala ñaar nga sujjóot ca jëmmi benn lemu lem boobeem wala yaari lemu lem yooyee dañuy seet ba xam bu fekkee ne booba foofa daa tàng jër mbaa mu sedd guy ba tax nga sujjóot ca lem-lemu kaala ga kon deesu ko sib ndax ngànta ko waral waaye bu fekkee bañ a takk suuf dong nag moo tax nga sujjóot ci sa lafu mbubb mbaa sa lafu kaala mbaa lem-lemu kaala su boobaa def nga lu ñu rek waaye du tax na dara war wala mu yëkku nekkul cheyun dara xalaaman di war koo xam ne xalabaxoo not na ko xëyun am wàccu koo xam daa julli am wàccu dikkal ko moo xam ne sakkuwu ko yàllaa ko dogal ci moom rek dara du ko ci war waaye kooku aajo woonaa teeylu day ami sart day aajo wàccu ma laab maanaam bañ a soppiku na meloon ci ñam wa xam ne kon ndegam soppiku na meloon ci bañ koy lekk kon laab na tey bañ a bari sart la ja te it mu bañ caa wan na dara ci gannaaw ba nga ko mënee yàbbi fekkee wanaat na dara rek cee wàccu ma rek mbaa wàcc ma soppi ko rek bañ ne léegi soppi la ba wàcc ma bari rek kon julli ga day yàqu dafaaka naka noonu xalasul ngall yaa talabatan yéen way ngal la moom li ci ëpp bu bàq gi feeseeg ñam rek mën naa mu buuj la ciy génne nag moo ngal la loolu li ci ëpp nag moom du soppiku bëriwul ay xayta ba dara maanaam ah, li ci ëpp moom du doon sobe moo tax la moom bu génnee ci moom du wàññi dara ci moom mën naa soppiku ba amee meloo sobe ñu jàppe ko sobe waaye ngalla mi li ci ëpp moom lekk ëpp ga rek mooy dem ba baax ga fees mu gaaw a sotti ko rek moo li ci moom du àgg ci sobe wu moom du yàq julli wasawu maamoom min maamoom la daq ci daayil sa ak roy mi yaxmiluhu dana ko yenu alimaamu ilimaan ba nee na boo àndeeg sa ilimaan boo juumee juum goo xam ne bu doon yow dong ñu digal la ci sujjoot xabla mbaa bax da su boobaa ilimaan gàddu na ko du aajowoo ngay sujjoot yow ndax ilimaan gàddul na la ko mel nga ànd ak ilimaan bàyyi lu mat ñaari allah akbar mbaa ñett loolu bu doon yow dong dana aajowoo nga sujjoot waaye nag ilimaan gàddu la ko xayrul jaa yi ndare aji dikke bi naqsi fardin ci wàññi farata min salaati julleem nga falaa yaxmiluhu du ko yenn alimaam ilimaan ba xan walis ko mos jaran lu mu mën di doon ilimaan kat la mën a gàddu mooy loo xam ne bàyyi sunna rek nga xam ne moom sujjóot xam la mbaa baax da cey wax hmm. ilimaan la mën a gàddu mooy juum goo xam ne sujjóot rek moom lañ ci digle woon waaye lu mel ne wàññi farata nit ki wàññi ab ponk bu wala bàyyi rakk bu lëm loolu moom ilimaan mënu koo gàddu faaw maamum da koy def rek waaye ilimaan mënu koo gàddu wa in juum na awan yàqa wala gàllankooreef man ka nga xam ne xadi tasaaroy na aw ànd fa wala naka moom naxasa gëmmentu na ani rukkooy walis rukkoo waxute moom fii salaat nekk na ci julli ga xayrul ula budul ràkk ba jëkk fa xukkum woo kon atteem ba jalaa feeñ na xukkumay ni mbir mu ngi ñaari atte xindam fa ñoom ne bu fekkee nga ànd ilimaan ilimaan rukkoo ba jàll te yow nag jotoo rukkoo maanaam la ko waral da fàtte woon ci rukkoo lañ toll mu def ko ba weesu ko maanaam dañ laa gàllankoor tànc la ba nga xam ne mën laa sëgg rukkoo mbaa da ngaa xaw a gëmmentu rek ba ilimaan rukkoo ba jàll yépp mën a ci kon dañu seet ba xam yaa nga ca ràkk ba nga jëkk a fekkee moom wala ci beneen ràkk bu dee ci rakk ba nga njëkkee fekkee moom moom da ngay jàpp ne rek léegi da ngaa ñëw fekk ko ci ab rakk bu rukkoo ci bu jàll rek nga xam doo ko wàññiwaale xam nga tey boo ñëwoon julli gi fekk ilimaan di julli fekk mu rukkoo bu siggi da ngay ànd moom rek te bañ a wàññiwaale booba rakka ba tey fii ne noonu la bu dee rakk ba nga jëkk fekkee moom ca la loolu dal da ngay jàpp yow am goog moom dara rek tàmbali nga daal ànd ak moom rek kon loolu noonu noonu lay gàttee li mu lay wax ni nag am na ñaari atte nag moom mooy bu fekkee fekkan nga am ci benn rakk mbaa ñaar boobaa day am ñaari atte yi mu lay bëgg a wax naa la atte ba feeñ na doon ñaari atte te mooy fa in yaakaar na an yudrika mu jot al ba ko bay la rafir la ci njëkk yëkkati bopp yaa xulaaman yow as ngóor min sajdatin ci ab sujjóot saaniyatin bi aj ñaareel falyar ka xan kon naru ko waleel ka xan kon naru ko waleel xaq te na joti al imaama ilimaan ba ku nekkal mu tabi xan di aji topp nee na bu fekkee ne ilimaan ba day ilimaan boo xam ne ak julleem day teey day yéex nga xam ne jàpp nga ni daal léegi rukkoo bee mu def ba weesu ko mën nga ko fee def dem dabi ko balaa yëkkati bopp mi ci sujjootu ñaareel ba kon na ngay gaaw rek daal di rukkoo tekkeel ci topp dabi ko ba fa mu balaa yëkkati bopp mi ci sujjootu ñaareel ba loolu nag bu dee ilimaan ju yeexu julli danga ko mën amma isa lam yett ma an ndaal ndéem xemmi mut idraakahu ak jotam tarakahoo kon mu bàyyi ko su ma tabaxa topp mu toppi al imaama ilimaan ba bu fekkee nag yaakaar nga ne moom yegg fi di def rukkoo bi di ko dab moom balaa yëkkati boppam ci sujootu ñaareel ba mënoo ko ndax ak julleem daa xaw a gaaw boo fi yéen jéem rek di ko jéem a dab yi mu daal jàll ci rakk ba ci sës dana dana nopp ci sujootu ñaareel ba jàll ci rakk ba ci sës kon da ngay bàyyi rek rukkoo baag lépp rek koy fekki fa mu nga jàpp na ne boobu raw na la bu ilimaan nga fayee ko beneen mooy suma xadaa topp mu fay mawdiha ci bérébam ba bax de salaami imaam yi ci gannaaw sëlmalu ilimaanam moom na ngaa jàpp ne ilimaan ji xaw naa gaaw ba boo fi dee jéem a rukkoo bëgg dabi dan dem ba yëkkatikoo ci sujjóot ñaareel ba te doo ko dab kon su boobaa da ngay bàyyi lépp rek noonu fekk ko fa mu te bu sëlmalee nag nga def ab rakka weccee ko rakka boobee nga xam ne cala la rukkoo ba rawe woon wa in saha ndeem juum na bu ci saa in borom gu roy wala sujoot aw ànd ko wala naka moom sooxima boo xamteef nag moom aw xad naxasa wala mu gëmmentu xatam taqala ba toxu imaamu ko limaanam illa rakaatu jëm ji rakka ba al uxra ba ca des sajadahu kon mu sujjóot ko mustaajalan bi muy lu ñu gaawe la weesu woon ne mooy ba jàll yow nag jot laa rukkoo ndax benn nga koo fàtte ne rukkoo lañ la mbaa nga xaw nelaw wax nag léegi bu fekkee ilimaan daa sujjóot ba jàll te ci sujjóot lañ toll maanaam dañ laa tànc buux la bu mën laa sujjóot man naam na ngaa xaw a gëmmentu ba ilimaan sujjóot ba jàll waaye daal sujjóotoo in rajaa ndeem yaakaar na darka xoo jotam nga xadru ko njëkkru ko xulima bu xameef na ko wa illaa bu lool rek fa kama taqaddama kon naka mu woon rek la nee na su fekkee ne ilimaan ba jàpp nga ne ku yeex la ba man ngaa gaaw def sujjóot na mu waree jaal dabi ko fa te du jotagoon rukkoo te ràkk ba ci sës kon loolu baax na kon na ngay gaaw rukkoo rek def na nga war a def dem dabi ko balaa rukkoo ca ràkk ba ci sës bu fekkee ne moom ak julleem dafa xaw a gaaw yaakaar nga ne boo fi nekkee bëgg a sujjóot bëgg koo dabi dana jàll ci ràkk ba ci sës ba rukkoo ca te doo ko dab kon na ngay far bàyyi rek sujjóot ba noonu te dem dabi ko fa mu toll te jàpp ne boobu ràkk moom bul ko limaaleeti bokkoo ca waxay suma xadaa fu mu fi fayee rakk xatahu rakkaam ba falaa xale yi di ko war ay yasjuda mu nga xam ne nuqi la toxaleef na ko moo xam nag ca rukkoo ba la moo xam ca sujjóot ba la su fekkee da bàyyi woon fa nga toll dem dabi ilimaan bu ilimaan noppee nga julli ab rakk fayee ko boobee nee na boo fayee rakk boobee du aajo ngay sujjóot ba'da salaam sa yokku na waaye du aajo ngay sujjóot ba'da salaam te xam nga rakk boobee boo ko dee seet ab rukkoo rek la manqué woon ba ab te da nga koo fayee beneen kooku ndooleen la waaye nag du aajowoo ngay sujjóot ba xam salaam illaa bi shakki ndari mu ànd ak sikki sàkk fi rukkoo xen ci rukkoo aw sujjóot wala sujjóot fa innahu naka moom yas jud dana sujjóot baax du ci gannaaw ba yaa muridan yow ab taalibe lu may da ngay sikki sàkk ba xam nag xamatoo loo defoon maanaam ndax dangaa gaawoon rukkoo door koo dabi ca ba mu dee rukkoo ba ak dangaa gaawoon sujjóot war koo dabi te bu ba am na ngaa jekki woon jekki dabi ko xam fa mu toll rek xamatoo loo ci defoon kooku moom ngay jàpp lu gën a wóor mooy dangaa jekki woon jekki dabi ko ci fa mu toll daal di fay braka itam bu ilimaan sëlmalee waaye nag nga sujjóot na nga sujjóot boole ci ndegam sikki sàkk am na ci xamoo loo defati woon kon na nga sujjóot ba xam salaam doole ci waaw kon boo fay ràkk ba noppi da ngay sujjóot ba xam salaam boole ca wala mu yëkkul nekkul ci dara xalaaman di war koo xam ne xattala rey na ka xaqara bi lu mel ne jiit xasadoxoo jëj dëgmal si na ko fa tànqilan na nga xellu maalam yu tawil li fekk yàggalut fian la xoo jëfam ja awalam yamil wala jéngut an xiblatin wala xibla fal xam sax kon dogga min sàmm ci foofee xuqi la xelloof na ko ñu ne booruñ julli lu mel ne jiit mbaa jaan mbaa leen wut si la nga gaaw rek rey ko waaye yàggoo ca rey ga taxulaa mooy xibla loolu du wàññi dara maanaam bu fekkee da yàgg ca ray ga dañ koy jàppee jëf ji bari ju bokkul ci ju bokkul ci julli ga su ko defee kon sa julli yàqu ba tey bu fekkee mooy nga xibla itam julli ga yàqu kon say boo dagg ko tàmbaliwaat waxul waxal li ma ñeel ka nga xam ne fii kaw ni nekk na ci ak nekkam fil witri ci wetar aw taaniyati shafi wala ñaareelu safa istiraabun sikki sàkka ne ko xad rawaw nett nañu jaaxal la ko sax def dii bi nga ràkka saaniyat mu di ab ñaareel li shafi ñeel sabaa maxa sujud ànd sujud bax da ci gannaawam fi sharxi ci yoon su ma xalee ko topp war na la bax da zaar ci gannaaw loolee alwitru wetar kama nasa ni ki yaxale bii ci moom alfaqihu aji dégg ji fiq alxibru kay fóore nene bu fekkee da nga doon def safa wetar nga dem ba yàgg xamutoon ba xam dangaa noppi ci safa ba jàll ci wetar nga xam ne ba nga taxaw wetar la am kay ci safa nga toll am nga ca benn ràkka ba toll wala ngay sikki sàkka nga xamul daal ba xam nottu nga ci safaa ba ràkk bii nga taxaw mu wetar la wala kay ci safaa nga nekk def nga ci benn nekk ca ñaareel la kon da nga jàpp la gën wor mooy da nga jàpp ne ci safaa nga nekk ràkk boobu nga nekk moo dim ñaareelam bu ko defee nag boobu jeexee nga taayu sëlmal moom ràkk boobee nga taayu sëlmal te sujjóot nag bax de salaam ndax da ngaa def lu gën a rek waaye boo demee bi nga ko jàpp ñaareelu safaa boo demee fekk na nga nopp ci safaa bu nekk ci wetar kon nag boo jàppee boobee mu ñaareelu safa rakk boobu jeex ba nga taayee ba sëlmal da nga sujjóot boole ci nga door nga a jóg nag andi wetar nga door a jóg nag andi rakk wetar waxul waxal li ma ñeel ka nga xam ne takkal la mu wax na bay na maay seen diggante li sax wi ngir juum ne ko lâché di dara la si ma muy war xale ga ci yow diggante ñaar rakkay safa ak rakk wetar dañoo bañ nga wax fi dara su fekkee da nga faa wax nag waaye njuumte rek a tax ni ki da nga koo fàtte rek kon moom dara waru ca te sibuñu ko itam dara du ca war benn yoon sax waaye sib koy du ca am ndax loo tayut la wa in yëkkun dem dana nekk nag zat taka lu mu giléeg wax fi nga xam ne ci tey foofu kon moom makruh lu ñu sib la la daa fa ña nga xam ne xali moo xam nañu bu fekkee ne wax ga nga wax diggante safaak betar yaa ko tey kon su boobaa def nga lu ñu sib te doo xam ne war la ci waaye def nga lu ñu ci wa mudrikun aj jot aqalla lu yées min rakkatin ci benn rakk max imaam yi ànd ilimaanam bu kaanate mu nekk mas boo xam ne ku ñu raw kook tàmbali na ci julli ga kooku day in sajada dem sujjoot na alxabli yu sujjootu xabla awil baax ji wala sujjootu baax da max wa ànd ak ilimaan fa bataras kon yàqu na salaatu wa julleem nga ngir te yàlla na nga am asaxante yaatu wërsëg nee na bu fekkee la nga fekkee julli ilimaan matul benn rakk sax ndax rakk bu mujj ba ci nga ñëw te fekkee woo jàpp ci woom ya kon nee na bu ilimaan dee sujjóot xam la mbaa baxat sa yoon nekku ca ndax yow amoo ci julleem dara kon nag bu ilimaan dee la mbaa baxat nga ànd ak moom rek sa julli yàqoo muy sujjóot rek nga ànd ak moom naka mu sujjóot baagal na nga jóg àggale sa julli julli googee du baax def nga ko ba mu àgg du ko tax a baax ndax la nga bokk ak ilimaan sujjóot xam la mbaa baax da te fekkee amoo ci julleem sax lu mat benn rakka laakin waaye nag isa adraka ndem dab na maxu ànd ak moom rakk xatan ab rakka kaamilatan bi aji mat ab rakk xatee wala ñaar rakka faraxa na nga sàmm sajada kon mu sujjóot qabli yam sujjóotub xabla maxal imaam yi ànd ak ilimaan waa axarate mu yeexe albaxdi sujjóotub baxda li tamaan ba ca mat wa yasjudu tam koy sujjóot baax dama sallama ci gannaaw ba nu salmale leen nag boo xasee am ci jul ilimaan lu mat benn ràkk rek rawante ne mopp ko kon xamal ne sujjóot bu ko war rek war na la moo xam xabla la moo xam baax la buy def na xabla maanaam njëkk salmal nga ànd koog moom ndax yéeneem rek li mu lay raw raw dalaa gën a jege sëlmal rek waaye sëlmal a gudd kon bu dee xabla mën nga koo ànd ak moom waaye danga dangam dafa laa raw nag moom bu dee sujjóot baxda salaam da ngay bàyyi yow ba fay ba noppi ba sëlmal door a def baxda salaam kon na nga tàqali foofu limaam bu la rawee tey def xabla nga ànd moom waaye bu dee def baxda ngay bàyyi yow ba ba noppi ba sëlmal door def baxda fa in xaala fa jiwoon ak loolu nag xaamidan mbir muy aji tey ko fa butlaan kon yàqu julli na zukki na ko mi neef na ko nee nag bu fekkee élimaan day sujjóot baxda salaam mu raw la nga ànd ak moom tey ko sujjóot baxda salaam kon sa julli yàqu bu fekkee tëyoo ko nag moom du yàqu waxul waxal li ma si bokk ñeel ku ñu raw xaraa ko gaar na ko bax daxoo ci gannaaw ilimaan ba sëxwun njuumte ko fa ante yow yaa ngi mel ni aju julli wax daxoo moom rek bu fekkee ne ilimaan dafa sëlmal ngay fay nag lam la rawe woon daal juum nag ca sa fay googee xamal ne kon boo nga du julli yow dong juum ci ñooy moo rek saye boo nga seen njuumte la ca war nga def ko masay boo seet njuumte la la nga ci war a def nga def ko ci ndax ilimaan la nga ànd ak la gàddu waaye ndegam juum nga bay fay moom juum loolee nga juum gàdduwu ca dara mu nga doon julli yow doomu juum si rek ñooye moo wa in tarattaba ndeem toftaloona xalal masdox ci kañu raw min imaamihi tukkee ci ilimaanam mooy ji bu baax di yin aji waral sujootu baax da yaa ngi ne boobu dana gaar wa xabli yin ak luy waral sujootu xabla bi nafsi yi ci wàllu boppam fal xabli yi kon sujootu xabla yu ju siwoo dana ko doy kama nag mu dikkee fi naqal ci toxal ga nee bu fekkee da ngaa ñëw ànd ak ilimaan mu raw la moom ci bopp nag mu def li waral sujjóotu ba'da salaam yow nag bu nga jógee bay fay la mu rawe woon nga def li waral qabla salaam xam nga ne kon léegi day mel ne ci wàllu bopp def nga loo xam ne moo tax ñu digal la sujjóot qabla te ànd nga ilimaan ba ci baraka te moom itam fekk baax na waran koy ci wàllu boppam moom ilimaan kon dañuy jàpp ne rek yaar yëpp daa soqi ko ci yow mooy lay waral baax da muy ndolleen ak lay waral xab la muy wàññi mbaa boole wàññi ak dolli dañuy jàpp ne yaar yëpp daa ko ci rek maanaam moom yaar yëpp bàyyi ko woon ci yow daal ñooy moo da ngay sujjóot xab la mu daal doy ngay def rek mu daal di baax wa man zakara ku fàttaliku wa man zakara ku fàttaliku rukkoo xan rukkoo fi sujjóoti ca bam tolloo rajaxa kon mu dellu qaa'iman li muy aji taxaw xalaamaa ca la nga xam ne suuxira siiwaleef na ko ne koo xam ne daa dem bay sujjoot fàttaliku ne moom kat rukkoowut kon du sigg rek ba tolloog ay woomam dal cee jàpp déedéet day delluwaat ba taxaw jonn ndax sëgg jëm si ca rukkoo ba daa mënta ñàkk te wa yustahabu def na sopp ay yu'ida mu baamu shay'an dara min qiraati ci jàng ka waqiita yàlla na fegaleef la alxay a yàbbi lislaam dañ koy firee waqiita yàlla na fegaleef la alxay a murtad fekk na murtad mooy jëmm ca def génn ko ca lislaam waaye daal alxay a cosaan la wàccu lay firi dugg ci lislaam ba noppi nag génn ca lislaam ja daa xaw na naroon teg ku lekk ba noppi wëlbatiku wàcc ko daa wax ne ba mu ko rokkoo ba te fekk muy sujjóot ñu wax ko ne ko dellul ba taxaw jonn su delloo ba taxaw jonn bëgguñu mu rokkoo fa saasee saasa dañoo bëgg rokkoo topp am njàng ñu bëgg kon mu baamu dara ci njàng ma tam bañ a doon fatiha ndax fatiha tam muñ ko ko baamu ci ab rakka kon day jàng leneen ci alxuraan nag door a sëgg rukkoo waaye summa isa rajaxa topp ndem dellu na xaa iman mbir mu ngi aji taxaw rakkaxa mu rukkoo wa sajada te mu sujjoot albaadi ya sujjootu baxadu salaam min saydin ngir ndolleen wàqaxa lool tàbbi na mooy lool xew na su delloo ba taxaw jon daal boobaamu la muy jaamu ca njàng ma ba noppi nag mu door a sëgg rukkoo te sujjoot baxadu salaam bu julli ga jeexee ndax xam nga ne dolli na wa man nas yi ku fàtte li sajdat ñel ab sujjóot wa waqaxate tab bi zikraahu fàttalikoom nga bin ba adil xiyaami ci gannaaw taxaw ga rajaxa kon mu dellu ilal julóosi jëm ci jataay ba saajidan mbir mu muy aju sujjóot in lam yakun dem nekkutoon yajlisu di toog xablahu ci ak njëkkam la daaman fa ka nga xam ne xadd fàttu na xellu na su fekkee dafa sujjóot benn sujjóot daal di fàtte boobu ñaareel ba ba delloo ba taxaw nag mu daal di koy fàttaliku kon nee na bu xawee koo ci kaw ba ñëw day toog ba noppi door a sujjóot waaye du jékki-jékki sujjóot ndax dañuy jàpp ne ndegam sujjóotu ñaareel la fàtte kon ba mu sujjóotee benn dafa jékki woon jékki daal di jóg jot doon toog toogaay bi war a nekk diggante ñaari sujjóot kon nag na toog njëkk door sujjóot sujjóot bi mu fàtte lu may nag mu wóor ko ne moom kat ba mu siggee sujjóot bi njëkk ba toogoon na door a jóg jàll mel ne kon wóor na ko ne toogaay bi war a nekk diggante ñaari sujjóot ñi defoon na ko sujjóot bi rek la fàtte woon kon bu agsee du aajowoo muy toog foofu day jekki-jekki rek daal di sujjóot sujjóotu ñaareel bi wa in nasiita ndem fàtte nga sajda tey ni ñaari sujjóot yaa ariban yow aji xellu fa xura rotal mooy na nga rot saajidan mbir nga aju sujjóot wala taj liste bu toog tu kon nga jam jub nee na bu fekkee nag ñaari sujjóot ñëpp nga fàtte woon defoo ci woon benn benn kon dangay ngay jekki-jekki rek xawiku daal di sujjóot waaye bu toog ba àggal door a sujjóot ndax xam nga ne foofu ndax xam nga ne foofu ab toogaay amu fa kon daal bu fekkee ne ñaar sujjóot ñëpp nga fàtte woon moom nga dem ba taxaw door ko door leen a ko boo xawi ko da ngay jekki-jekki rek sujjóot benn ba toog diggante bi daal sujjóotaat ba ca des waaye nag ba nga xawi ko baax si moom bu toog ba àggal door di sujjóot ndax foofu toogaay amu fa wala tasjud na nga sujjóot albaxandiyee sujjóotu baxande salaam fii jamihimaa ci mboolem li nga xam ne dakartuhoo tudd naa ko min aj li sayli ngir ndolleen ma lool xameef na ko nee na nag ba nga fàttee benn sujoot ak bi nga fàttee ñaari sujoot yépp a ci yemoo boo defee nim la wax ba noppi bu julli nga jeexee ba nga sëlmal da ngay sujoot sujootu ba xam salaam ndax boo ko dee seet gis nga dolli nga xam ne moom nga dolli julli nga wa in tadakkarata nga as sujooda sujoot ba almansi ba di buñ fàtte yaa dal musalli yow jile aji julli baxda rafi rësi ci gannaaw yëkkati bopp ba mir rakkaati bàyyi ko ci rakk ba allati ba nga xam ne taliha dana ko topp fam di kon na nga wéy xalaa salaatika ci sa julli bi xawlil mardi ci waxi kañu gërëm ay li ci namm rek mooy laa takkun bul nekk jaa yéen di aji dikkee bi dal sujjoodi ci bi lay sujjoot bi dal sujjoodi ba li fi nekk alqiha nga wàcc ràkk boobee wasitta nga dolli rakk xatan ab ràkk baani yéen mbir mu ngay aji jokk nee bu fekkee dangaa fàtte ab sujjoot ci ab ràkk ba jàll ca ràkk ba ci sës ba rukkoo ca ba siggi loolu nag dafa tudd sujjoot bi rek waaye mboolem farata yépp ñoo yemoo bépp rakk boo xam ne fàtte nga ca farata ba jàll ca rakk ba ca moom mbaa ba ca sësaat ba rukkoo ca ba siggi door a fàttaliku ne rakk sàngamkat bàyyi woon nga ca farata xamal ne kon dabaatal ga wees na rakk ba nga xam ne ca nga fàtte farata ja danga koy bañ a wàññiwaale ba ci moom daal di koy wecc loolu la jublu ci baaniyan mbir mu ngi aji jokk jokk googu mooy ràkk sàngam limaaleetuñ ko ba sës ci moom wecc na ko niki ràkk bu njëkk bi bu fekkee da nga cee fàtte woon sujjóot bi mu wax mbaa beneen farata ba jàll ci ràkk bi sës ci moom mooy bu ñaareel bi ba ko ci ba siggi door a fàttaliku ne ràkk bu njëkk ba kët bàyyi woon nga ca farata kon na ngay jàpp ni amatoo ràkk bu njëkk nga jàpp ne rakkab ñaareel bii nag léegi moo soppiku sa bu jëkk noonu lay tegaloo nag su fekkoon ne nag jotugu la àgg ci rakkab ñaareel ba baru koo ca ba siggi kon farata ja nga fàtte woon ca rakk boobee da ngay dellu defe ko rek kon dabaatal ga weesawut was judan na nga sujoot nag xabla xooj njëkk salmal ba li naq si ak wàññi waqaxa ko xew na maxa siyaarit ànd ak dolli te kun kon nga nekk motta bi àndi aji topp bu fekkee ne nag lii am na mooy am na rakk boo fàtte farata ba jàll ca ba ca topp ba rukkoo ca ba siggi door a fàttaliku ne ah yow kat bàyyi nga farata ci rakk ba ko jiitu loolu buñ ko toppee ba julli ga jeex léeg-léeg day boole dolleeg wàññi léeg-léeg itam muy dolli kese lay waral nag mu boole dolleeg wàññi mooy bu fekkee ne farata ja nga fàtte da koo fàttee ci ràkk bu njëkk mbaa ci boobu ñaareel te yéex koo fàttaliku ba dem ca boobu ñetteel ba baru koo ca ba siggi mbaa nga jàll ca boobu ñeenteel ba baru koo ca ba siggi nga xam nga ci misaal bu fekkoon ne ràkk bu njëkk bi fàtte nga ci sujjóot bi mu wax mbaa beneen farata nga jàll ba ci rakkab ñetteel ba nag baru koo ba siggi door a fàttaliku ne ah man kat fàtte war naa farata ci ràkk bu njëkk ba kon xam nga amatoo bu njëkk bu ñaareel ba moo soppiku bu njëkk boobu ñetteel bii nga taxaw moo soppiku am ñaareel moom na xam nga jotoo ci jàng aw saar ndax da ngaa jàppoon ne ab ñetteel la te ba nga tolloo ci taxawaay ba ba jàngan ci faatixe kese léegi bi nga rukkoo ba siggi rek nga fàttaliku ne ràkk bu njëkk ba amatoo ko kon bu ñaareel ba soppiku na bu njëkk bu ñetteel bii nag léegi soppiku na ab ñaareel nga xam ne kon amutu saar foofu kon saar yi rek moo fi manqué ndax ndegam jàpp nga ne ab ñaareel la kon na nga toog foofu taaye muy taaye digg waaye nag boo demoon ba ci ràkkab ñeenteel ba baru koo ca ba siggi door a fàttaliku ne ràkk bu njëkk ba mbaabu ñaareel ba am na ca boo xam ne bàyyi woon nga ca farata kon yooyu jamono moom yaar yëpp moo lay raw maanaam jàng aw saat na la raw taayo taayo digg bëtit na raw te xam nga ndegam ñëw nga ba ñeenteel door a fàttaliku loolu xam nga ne kon ñeenteel bi di soppiku am ñetteel te xam nga ne boobee nga defum ñaareel moo nekkan sam ñetteel amutoonu saar ndax ba nga ci toll da ngaa woon ne ab ñetteel la nga jàngoo ci woon aw saar te fekk na woon léegi soppiku na ab ñaareel ba mu soppikook ñaareel itam foofu la taaye digg waral na nekk waaye ba tey toogoo fa woon ndax ñetteel nga ko jàppe woon dangaa ñëw ba ci ñeenteel ba rug ko ba siggi sama xel doola dem ca loola moo tax fu mel foofu moom yaar yëppay raw saar wa tey raw ca rakkam ba taaye digg itam raw lu mel noonu nag mooy tax kon ngay sujjóot xabla salaam ndax jàpp ne boole nga dolli ak wàññi dolli gi moom xam nga ko mu leer la naññ ndax mooy ràkk ba nga xam ne danga caa fàtte farata dabaatal nga wees nga weccee ko beneen moom dooleen lay doon wàññi gi nag mooy li la wax mooy benn nga wàññi saar wa kese mbaa nga wàññi yaar yépp saar waa taaye digg ja waaye lii nag balaa mën a am farata ja nga bàyyi da ko koo bàyyee ci ràkk bu njëkk mbaa boobu ñaareel te yeex koo fàttaliku ba fas ràkkam ñetteel mbaa boobu ñeenteel moom li wax ci yax bi naa la haza lii kat ida zahara ci ñaar ràkk yu njëkk ya wata zakkara te mu fàttaliku ba'da taalisatihi ci gannaaw fas ràkkab ñetteelam ba balaa lii am daal bool doole wàññi day fekk nga fàtte farata ja ca rakk bu njëkk mbaa bu ñaareel te yéex a fàttaliku ba dem bu fas rakkam ñetteel maanaam rukkoo ca ba sikki mbaa ba fas boobu ñeenteel de ama isa lam takku ndaal ndéem nekkut waaye nag ama isa lam yëkku mooy li nga xam ne moo gën yell ci zahir ama isa lam yëkku loolu fii maa ci ñoom ñaar ma xam boole seen falees jut kon na sujjóot albaxdiya sujootu baxda salaam fii maa ci la nga xam ne sumiha déggeef na ko maanaam bu fekkoon ne farata janga bàyyi bàyyi woo ci ràkk bu njëkk bàyyi woo ko ci ràkkam ñaareel mel ne yaa ngi ko bàyyee ci ràkkam ñetteel nag ba dem ca bopp ñeenteel ba baru koo ba siggi door a fàttali ne ah yow kat sa ñetteel bi bàyyi nga ci farata kon ngay soppi sa ñeenteel boobee mu dim ñetteel nga jàll tegaat ci beneen rek su boobaa doonul kese moo fay am kon ngay rek baxde salaam aw kaanat wala mu nekk sax min xumaaj ñoom ñaar